pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core t le smartphone Core x et le téléphone flottant Shark x sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. Core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

yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi almaliki alqudusi alasiisi alxakim huwa alladi baasa fi lumiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa alasiisu alxakim zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim masalu alladina xammilu tawreeta suma lam yaxmiluha kamasalil ximeeri yaxmilu asfaara biisa masalu alqawmi alladina kazzabu bi ayatillah wallaahu laa yahdi alqawma alzalimin qul yaa ayuha alladina haadu in zaamtum annakum awliyaau lillahi min duni naas fatamannawu lmawta in kuntum saadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim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 fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillahi wadkuru llaha kasiran laallakum tuflixuun wa ida raaw tijaratan aw lahwan infadduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul maa inda llahi xayrun min allahwi wa min atijara wallahu xayru raasiqiin allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله الله أكبر الله الله